ci wàccaayu màggalu daaru salaam bi ñu jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru août ci lañ amaloon benn CRD ci altine bi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet ñu amaloon ko ca gouvernance bu Diourbel ci teewaayu gouverneur bi préfet bi ak mbooleem chef de service yi nekk ci biir région bi ginnaaw ba ñu teewloo comité d'organisation bi ci seen ay bëgg-bëgg ci wàllu taxawaayu màggal gi ci wàllu sécurité bi police ma andi ñeenti téeméeri élément waaye tamit ci wàllu ndox mi ñaar fukki camion citerne dinañ ko indi waaye ñu indi ay branchement yu bees ci yenn sancaan yi ministère de la santé tamit nam ma teg ay unité mobile d'assistance yuy dimbali ñi ñëw di màggal si assainissement tamit dinañ jël ay matuwaay ngir setal dëkk bi ci wàll woowu tamit waa électricité dinañ yokk wàllu courant bi nekk ci dëkk boobu lii lay comité d'organisation bi sàkk ko ci ñoom ba ñu noppee ci la gouverneur bi daal di jël kàddu ngir tëj waxtaan bi laata muy jox kàddu gi maam Cheikh Anta mi fa teeloon xalif Daaru Salaam mu daal di ñaanal mbooloo mi